mbokki internet yi dal leen ak jàmm lu toll ci milliard nag wala lu koy jege moom la ñu daal di sàccee fi li nga xamante ni moo de ca këram moom mi la di directeur général bi la di Cheikh Bakhoum Cheikh Bakhoum nekk directeur général bu Senum Senum nag mooy ex ADIE moom nag daal ci xibaar daal dañu ko le maanaam dugg ci këram sàcc fa lu toll ci euh, milliard euh, boobu nag këram nga xam ne mu nga nekk fële sax ñu naan soman ñi xam ne nag euh, ñooy woy ñaawteef daal ñoom ca këram la ñu daal di dugg jamono ñu fay duggee nag mel ni amoon nañuy xibaar ne caméra de surveillance yi nga xam ne ñoo nekk ca kër googe daal doxatuñu maanaam dañoo nekk en panne fonctionné tuñu loolee tax nag ñoom ñi le ñu duggee ci kër ga amul benn caméra bu nga xam ne mën na leen tegub gët ngir ñu mën ko exploiter gis leen waaye nag seenu dugg boobee ba ñu génn nag ñu yóbbaale ak coffre-fort bu nga xamante ni la ci nekk ndaat ci xaalis nee nañ ëpp na sax ak milliard bu ñu sukkandikoo ci journaliste bi di Amadou wala sax Adama Gaye xibaar yu ñu mel nag ñu jëlee ko ci Cheikh Bakhoum moom waaye nga xam ne dañ koy informé ci cambriolage bi ñu mel sax fii ci Dakar mëntoon nag porte plainte nag ndax jamono jooje moom mi la nekkul woon ci réewum Sénégal leneen nag moom mi la mu daal di teg ci ki nga xamante ni moo di gardien am ba nekk foofu doon garde kër ga daal mu daal di koy xupp di ko tiiñal ngir nag jàpp ne moom moo def jëf ñaaju ñu mel wala ànd ak ñi nga xam ne ñoo jëf jëf ju ñu mel ko napp ba xam dana wax ak lu ñu mel en tout cas Cheikh Bakhoum lu ci mën a xew jàpp nañ ne moom daal bokk na ci politiciens yi nga xamante ni ñoo gën a riche ci régime bu Macky Sall bile ak benn patrimoine immobilier ak foncier bu nga xamante ni jafe naa xayma lool euh, file ci Dakar ak li nga xam ne moo di Petite code bi ak fële sax nga xam ne moo di ca Dubaï lu bëri nag ci ay alalam moom mi euh, ci lu ñu xam mën nañ cee cité ay appartement jumelé yu am valeur bu toll ci quatre-vingt-dix millions de francs CFA fële ca cité Kër Yoff waaye aussi benn villa bu bakkane lool bu toll ci 1200 mètres carrés ca Somone bu nga ne mu ngi ko jëndee nag ci 180 millions de francs CFA waaye aussi euh, fële nag nga xamante ni sax. Euh, en un espèce européen nag mu daal di koy réhabilité à neuf de ci lu toll ci trois cent million benn terrain bu trois cent mètres carrés ci Ouest Foire bu toll ci quatre vingt dix millions francs CFA benn appartement naka noonu ci Scat boo xam ne bu ñu koy xayma mu ngi toll ci soixante dix millions de francs CFA au nom de sa sœur nga xam ne mu ngi tudd Mamy Bakhoum nag. moom Cheikh Bakhoum moomee jàppale na daal luñ ci mën a tënk rek mooy bokk na ci euh, ñi nga xamante ni ñoo gën a riche ci régime bu Macky Sall bile en tout cas euh, moom nag la ñu wax ne daal ay defkatu ñaawteef dañoo dugg ca këram daal di dem ak Copper Forum euh, jëlee fa lu nga xamante ni war naa toll ci milliard wala mu ëpp ko cib xaalis. loole nag depuis démb ba tey moo nekk xibaar bi nga xamante ni mu ngi wër moom Cheikh Bakhoum moomee nag bi ñu ko informé ci mbir mi nu mel mel ni dafa fekk mu génne réewum Sénégal ba tax nag mënu gudd coono àddu ci nam gaawee porte plainte ak yu nu mel lu ci mënta xew jàppale na daal di nga xamante ñu ñoo def ñaawteef boobe ba ñuy dugg ci këram nag moom Cheikh Bakhoum di fa cambriolé dafa jël mbër mi nu mel caméra de surveillance ya nekkoon ca kër ga nag jamono boobee dafa fekk ñu ñoo ñu nekk en panne doxuñu loole nag tax ba dina jafe lool nga jël ay image yi nga xamante ni moom ngay exploité ngir mën a topp ñooñe waaye nag lu ci mën taxew xaar nag fan la wananti du mujjee ki gërëm ak xaalis boobe toll ci milliard wala lu ko ëpp ñu daal di koy jëlee foofu ca këram.